démb la yëg ndaje nii te ngeen teeroo nii jërë jëf jërë jëf wante lii bettu ndax sama frère sama xarit sama am di jàmm sama miroir jëriñ cuub

nit da ngay am gëm-gëm surtout nag soo gëmee jëfal askan ndax li ngeen gis askan bi rek ndax te politique mooy loolu politique du leneen lu dul defar sa dëkk defar sa réew or suñu frère Yérim loolu lay liggéey te muy ci Gànjool ci Ndar muy département Dagana muy même yenen région du Sénégal bon jërëjëf président Yérim je suis fier d'être avec vous et je suis fier que vous m'ayez choisi pour travailler ensemble pour la réélection du président Lolo dama koy wax ci région Saint-Louis yëpp département Saint-Louis yëpp muy quatre communes yi ci arrondissement Rao ak la commune de Saint-Louis je suis fier de travailler avec le président Yérim Diouf Le président Macky Sall day woote valeur valeur la ñuy liggéeyee valeur doomu ndar valeur la xam doomu diwaanu ndar valeur la xam dañu xam teraanga dañu xam jëflante dañu xam respecté nit ak ku mu mun ci doon ñu jox la respect bi mu mat loolu la président Yérim Thioub di def loolu la mouvement Mass di def ndax nit ki da ngay niru sa kilifa jëflante nañu dem ngeen fu nekk ñu ànd fa demal leen seen bopp fu mel na fi ñu dem yëpp yëg nit ki ndax nit ki nekk ci village bi gën a reculé ci département bi war nañ ko yëg dem seeti ko wax ak moom saafante moom xam yenn jafe-jafe la am xam nit xamal ko lan la président Macky Sall la ko indil mu nekk ci quartier Saint-Louis ak quartier bu mu munti doon ak toogaay bu mu munti toog war nañu dem seeti ko waxtaan ak moom déglu ko ndax suñu ko dégloo danañu xam jafe-jafeem te danañu mun a waxtaan ak moom ngir mu jox kàttam président Macky Sall kon loolu dama ci kontaan te j'ai dit président Yérim Diop est pour moi un miroir ndax dañu war a am ku nekk ay royukaay or man dama koy roy taxawaayam ci dalam ci voiture ak ci bëgg jëfal askan bi dama ko cay roy bon maa ngi koy gërëm di ko sant di sant it soxnaam ndax nag ñun ñëpp xam nag ñeme wu ñu trop bu ñu mun ci toog dañuy wax quand même suñu chère yi ñu waaw loolu moom c'est nécessaire c'est ah. nécessaire ndax doxal te ñoom jàppale ah, ñu dëgg la man li may wax ni sax moom xam naa ni dama koy wax yaay premier ministre yaay ministre économique yaay ministre affaires étrangères yaay ministre des affaires sociales ak ministre des enfants ak loolu moom yooyu yëpp ci la bokk ah. gërëm sant aussi fii yi gërëm sant ñi fi ndax bu aussi ça me va droit au donc monsieur le président je suis très content très heureux et comme une délégation bi nous nous ñoom ñëpp kontaan nañu nañu ñaan ñu suñu que le 24 février su waxtu bi jotee ñu vive président Macky Sall nous, le premier tour ci ni ko waa Mass 2.1 2.1 dama koy tricher ci 2.1 ah. deux mandats au premier tour vive le Mass vive le président Yérim Diop jërëjëf monsieur le président Спасибо.